asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences tey dañoo desuwaatoon euh, pour waxtaan rek jëmee ko ci napp gi nga xam ne euh, mooy scandale bi nga xam ne ñun Sénégal yëpp la bokk jaaxal am sa alal am say jën am sa géej ay tubaab di di jël lépp di ko yóbbu te booba ba léegi dafa métti Euh, muy jaaxle goo xam ne askan wi bokk na ko jaaxle ba ci nappkat yi nga xam ne ci la ñu liggéey te contrat bi jeex na le dix-huit comme jeex na le dix-huit nag ñu buggoon a invité Mohamed Fadel Dieng Mohamed Fadel Dieng et de Saint-Louis itteem yëpp itteem yëpp ci jën yi la ko def ak napp gi euh, muy koo xam ne euh, activisme ci la ne waaye la ëpp ñu ràññee ko ci rek mi ngi xeexal nappkat yi guddi suba ngoon tey nag bëggoon ko invité bu ko laaj xalaatam ci euh, fin de contrat yi nga xam ne européens yi def nañ ko kon bisimilah Mohamed ah yow la ñuy déglu. salaamaaleykum ah Pape Ousmane maa ngi lay nuyu nuyu bu baax di rafetlu laaj yi nga laaj muy laaj am solo ñun nag ay sénégalais lañu rek bokk fu bari ci réew mi. Hmm. waaw bokk fu bëri bëri bokk ak ñu bëri bëri bëri ci réew mi mm-hmm. am taxawaay aussi fexe rek réew fi muy nekkoon ak fiñ ko yóbbu doon doy waar ñu war koo mën a defaraat waaye loolu pour mu am il faut que ñuy dab bëgg-bëggu nit ñi bëgg-bëggu sénégalais yi ñu ëpp ci sénégalais yi dañu bëgg a dellu si seen souveraineté mooy seen li moom ñu téewal ko seen bopp waaw ci yooyu ñu bëgg téewal seen bopp nag daf ci am bu xam ne moo ci ëpp solo muy napp gi hmm, waaw muy napp gi ñu gis ni sonn nañ trop ci gouvernement bi nekk fi tey ci dëpp ci local yi ci législatif yi ba ci présidentielles yi ñu war a dem nag ci députation yi mais ñu gis yoo xam ne gis nañ benn lettre bu ministre Fatou Diouf génnee muy loo xam ne daal suñu xel daal rafetlu wuñ ko te bu ñu sañoon ñu dellu ci gannaaw ndax ñun lañu jàpp mooy géej gi dañ ko war a may jàmm ku mel ni yow yaa ngi wax vingt ans ku ci nekk rek am nga ci xalaat mais ku mel ni man mën naa ne cinq ans war nañ ko ko may c'est-à-dire bii mu nekk ñu xool bu laajee ñu dolli ñu dolliwaat cinq ans ñu dem ba géej gi mën a mel ni mu meloon lañ doon dégg naan les côtes les plus poissonneuses du monde dellu si waat c'est possible bu dee gaal yi rek la ñenn nii di leen jiin ay yàq ay yàq yàq yoo xam ni mbaal ay mbiru mbaal ak yooyu mais yooyu yàq mën naa du yàq yoo xam ni. du tuur ay produits chimie du yore ay bateau usine wala du toj ay xeer yooyu yëpp gaal munu ko <laughs> waaw bu bateau yi di yàq junni peut-être bu gaal di yàq benn lay yàq te lool mun dañ ko corriger dans le linge sale se lavera en famille donc euh, si sama gis-gis daal géej gi moom dañ ko war a bàyyi nappkat yi euh, folot bi folot bi fi nekk Euh, ñu audité ko ba xam ñan ñoo ko moom dëgg na peut-être yi ci nekk bëri na ñu ngi koy wax waaw bu ci ay sénégalais yi ñoo ko moom aussi ñu xool ndax daan nañ fay tax mu waree daan nañ versé yi presse yeeg yooyu yëpp ñu xool ko ku ci nekk en règle ñu bàyyi la nga wéyal ku ci nekkul ay règle li loi bi wax ñu topp ko ma jàll ci beneen question bi ngay laaj. waaw Mohamed jërëjëf jërëjëf mbir bi leer na leer na. Euh, dafa am lu ma lu bëggoon la laaj rek euh, parce que yooyu yaa jege nappkat yi euh, daanaka yaay wax ak ñoom ci lu baree baree bari yow noo xayma mbir mi ak euh, loo yaakaar ne noonu la ko bay noonu la ko nappkat yi bëggee ndax kat kuddu moom bakku fa mbara dem te bu ñu waxantee dëgg mbir mi comme yéen ci liggéey yéen a ko xam dafay jaadu. ngeen informer gouvernement bi ndax kat ñaare état day jël rek sukkandiku ci diplôme indi fa nit te kooku moo fa indi ci statistique yëpp lay sukkandiku ñaare ñi nga xam ne ñoo ko donn xam ko man ko miin ko di ci tedd dem ba daanaka diine li ci ñoom ñooñu defe naa ne état amul lu mën a lijjanti te waxtu ñoom mal doon laaj yow lan moo ci sa pensée entre et les waaw tey Pape Ousmane bu ma gouvernement wax ji benn rek lay doom mooy géej gi dafa war a dell ci loxo sénégalais yi lépp lu ñu mën a def ba boole suñu xel ak suñu xalaat danañ ko def pour géej gi sénégalais yi téye ko cent pour cent ndax mën nañ ko ndax marta nañ ko duñu peuple bu ndaw dañu peuple boo xam ne tamit ñàkk nañ xam-xam suñu nappkat yi ñoo dàq nappati si àdduna bu leen ëpp xam-xam ci napp amul dañ leen fay yóbbu ñuy napp kon nag euh, kon nag euh, noonu rek mooy géej gi daa war a dellu ci loxoy sénégalais yi te dañ fexe jëli ji boromi xam-xam yi fi ne yëpp te xam géej te xam euh, environnement wu géej Euh, pour ñu waxtaan ci ba nga xam ni géej gi Sénégalais yi dañ ko mën a téye cent pour cent mën koo doxal nag géej gi niñ ko def ci vingt ans yi ñu génn dafa ëpp waaw dafa jot nag ñu dellawaat ko ci loxo Sénégalais yi ñu gisaat ci seen bopp waate loolu ñoom jomaa yi ñooñu ko gën a xam ñooñu ko gën a xam muy président Diomaye muy président Sonko ñëpp ñëpp loolu ñooñu ko gën a xam donc euh, gannaaw ñoom ñooñu ko gën a xam li war mooy dox ci léegi nag waruñu nangu ay pression Union européenne nag ay ñaan leen ak jën yi nii sénégalais yi soxla wuñ ko ak yooyu yëpp ay waxu daanu la li ñu soxlaa li ñu soxlawul daal dañuy bàyyi ba ñu audité ba xool ko doo ko xam lu ñu soxla ak lu ñu soxlawul waaw mais tëb nii rek ñëw rek bëgg saax saaxewaat géej gi li fi amoon amaat fii ñu naan ñu fii la ñuy yem ak ñee lee la ñu signé woon ñun lii lañu si signé ñun ñoo gën a bàyyi xel yooyu yëpp soxlawuñ ko nañ leen wax carrément ci njëkk ak teraanga géej gi dañ koo bëgg a téye ba ca kanam ba nouvelle ordre moo nouvel ordre moom boo ko waxee rek app la boo xam ni tant que yëf yi jaarul yoon duñu ñëw wax ak yow waaw ndax li jaral Jean Michel muy mu njëkk bi président Diomaye Faye mu njëkk Sénégal ñëpp fekkaat ko fii Nations Unies lu mu ko jaral ñun war nañoo jaral waaw ndax ñun la géej yàlla ñun la ko wërsëgal Union européenne dugal na deux milliards dollars la fi jëlee and half la jëlee Amérique ci deux ans yi ñu ci jën fii ni dugal ko fii ci Amérique loolu mënatul continuer loolu presque le un tiers du budget voilà kon nag loolu mënatul continuer loolu mën nañ ko mën nañ ko bu ñu jaayee Afrique jaay Tchad sax jaay Burkina jaay Niger sax moo ëpp moo liñ ciy gis liñ ciy gën a gis suñu bopp que ñoom jël ko dinañ koy jox ay sept milliards waaw euh, déglu naa laaj bi conclusion yi daal du weesu loolu nañu bàyyi suñu ay ressources naturelles ndax les ressources naturelles appartiennent exclusivement au peuple sénégalais la constitution bi wax kon nag loolu leer na nañ tant que doyul bay wàllaangaan bay këpp duñ ko mën a jaay balaa ngaa jaay day fekk yow sa peuple lekk ba suur sa armée lekk say étudiant lekk ba nga des des nga doog a jaay waaw boo jaayee nag su boobaa kenn dul wax jaayal léegi nag mais fii ñu toll nii suñu mool yi mënatuñu gis jën bi dañuy dem bay sere la woon fu ne la ñuy dugg risque yu ne di dee ci géej gi du leen ko teg géej gi ñu jaay rek ma dégg ministre bi naan ay waxu dee leen demee dëkku jàmbur yi dee leen topp réglementation yi ma ne ko déedéet ñoom ñu dem dëkku jàmbur loolay danger bi foofu nga daano da nga waroon toog man danaa fexe ba yéen nii dootoo leen génn réew mi di dem feneen loolu boo ko waxoon dañ ko mën a nangu mais boo leen demee que dëkku jàmbur na ngeen topp loi te nangam ñu waruñu dem dëkku jàmbur ñëpp doon ñëw di di di wut si senegal léegi ñoom ñu génn di dem ah ñëpp jàng nañ ni Sénégal. à les côtes les plus poissonneuses du monde loolu jàng nañ ko ñu ñëpp primaire lan moo xew ba ba ñu daal parce que bateau yi ñu bàyyi ñu ñëw di toj xeer yi di rajo xi géej mooy li nga wax di ramasser fu ñu war a nappee juróom napp fa junni loolu mënatul continuer di mbëkk suñu ay gaal di di xar gaal yi di rey nit ñi te dara kenn du wax loolu nag day jeex dafa war a jeex tàkk nañ ñu abal si biti jërë ngeen jëf waaw nan abal ci bitti nan abal ci bitti loolu moom leenu maanaa la lu yeenu maanaa la ndax ah, boo nekkee ci mbir ah, lu ay ati at ati at gisoo ci njëriñ dafay jaadu nga def te ndokk ba gouvernement bi wootee ne day ah, un changement changement boobu nag ci la ñuy yaakaar ci la ñuy sukkandiku ba lii nga xam ne ko moom tubaab bi bàyyi koog noonu ban mën a jubbantiku jëriñoo te loolu ñu naan souveraineté mu feeñ ci ndox mi feeñ ci lépp ba nga xam ne ab Sénégalais fu mu nekk fu ne Mohamed euh, moom moom boppam te it yëfam fu mu ko fekk sañ ko for dellu ci dëkkam kon daal mbir maa ngi noonu ngi ñaan le président de la république et son premier ministre nan fexe ba napp gi doon napp ci géej gi mu dakk na napp gi dakk na napp gi dakk tey boo demee boo ñuy fi aux États-Unis Alaska Alaska tey boo fa demee Euh, mu nga xam ne matuñu neuf cent mille neuf cent mille personnes matuñu ko matuñu ko tey ñoo contrôler seen napp amul kenn ku fay napp te lépp ñoo ko yor def naa ci sax benn émission ak un économiste boo xam ne fii la nekk euh, mu def définition ci euh, ci Alaska ni nga xam ne moom lañ géré ba macha allah macha allah manqué wuñ dara. waaw loolu la le le marché du Sahel am na solo trop. defe naa ne jaayante ak suñ bokki africain yi defe naa ne moo tane daal euh, jël suñ jën yi euh, di ko jox tubaab yi ñu di ko yóbbu tubaab yi nii di napp suñu jën yi noonu ñoom dañ ciy lekk paruñ ko dem jaayi ci américain yi saare ko ci adduna bi te ñi nga xam ne noo moom jën yi ci dëgg dëgg dëgg dëgg dama ne mënuñu cee am am na jën yoo xam ne sax réer na léegi kenn mënatu ko am dama kenn kenn kenn mënatu koo am waaw te tubaab yi jël nañ ko lu mel ne talapia par exemple Sénégal li ko Inde yi jëlee chinois yi fa lañ ko jëlee fa lañ ko jëlee ba léegi talapia mooy jën wi nga xam ne moo ëpp luñ koy consommer ci àdduna bi te ndox mu normal képp nga ciy def. waaw nu jégg lu baax di jégg lu baax moom met euh, di la ñaanal jàmm di la ñaanal jàmm lii ngay xeexitam itam euh, yàlla defal ci ndam defal ci ndam waa Sénégal gépp Euh, jën yi daal jën yi daal. asalaamaaleykum arrêté. asalaamaaleykum euh, wa rahmatulah ci réew bu fi kenn ñëwati. Euh, man la Seydina Ousmane Dramé ko réglé. bu la réveillé plan de Alaska plan bi Alaska jël. tey dañoo desewaatoon mën a jël. pour waxtaan rek jëmee kon ziare ñëpp di ñaaral ñëpp jàmm. mooy scandale bi nga xam ne Mohamed Fadel Dieng. Sénégal yëpp la ko jaaxal. peace am sa alal am say